leen sant di leen gërëm lonaas lonaas dëgër dëgër daaneelul kañam bi de dañ ko yolomal waaw di leen sant di leen gërëm rek effectivement. voilà man avant tout d' abord damay remercier la LONASE parce que c' était une grande surprise quoi pour man de jouer après ñu woo ma ñu ne ma tu as gagné donc sant yàlla quoi macha allah. maa ngi sant yàlla di wax gaañ yi dañuy dem jeu bi dëgg la donc amul dara loo xamante ne ni lu ñu kii la quoi jeu bi c'est vrai je damay woo ñëpp pour ñu dem jéem a jeu quoi parce que sens baa ngi si quoi donc ça m'a nag ñu wax ma ci gagné naa donc je suis très content voilà maa ngi encouragé féliciter la LONASE voilà que gars yi dem jouer affaire bi dëgg la donc man tey gëm naa ni loolu dëgg quoi voilà j'ai des projets ah sant yàlla maa ngi yaakaar avec le somme que j'ai gagné je peux réaliser mes petits rêves euh, que j'avais donc euh, moi ce que je conseille pour les Sénégalais que ñu dem jouer quoi jeu bi c'est un jeu réel donc euh, voilà. salaamaaleykum. gannaaw buñ leen euh, nuyooyee sant leen ci seen teewaay euh, dañu bëggoon ci turu directeur général Lat Diop félicité suñuy gañaa ñoom dañu am ngëm-ngëm ci LONASE am ngëm-ngëm ci produit yi ñu leen di jaay ba nga xam ne lii moo waral ñu gagné kañotu loto yi bu 44 millions. boo xam ne seen seen moo ko gagné ci cadre promotion boo xam ne LONASE da ko lancé promotion bi nag ñaari pàcc la benn bi mooy ci cagnotte bi fi nekkoon 24 décembre dañ cee yokk 10 millions deuxième promotion bi mooy cadeau de fin d'année boobu aussi ci cagnotte bii ñuy constituer bu le 31 décembre dañ koy yokk de 15 muy ay cadeaux yoo xam ne ñun ñoo ko LONASE ko jagleel ay parieurs am ànd ci ak euh, suñu partenaire bi buy muy Eric muy premier Sénégal waaw di leen gërëm di leen sargal di ñaan aussi que lii ngeen gañe fii euh, yàlla defal leen ci xéewal defal leen defal defal ko seeni njaboot waaw di leen xamal ne nag LONASE day continuer rek di leen di jaamu seen soxla moo tax. boo leen seetloo façon jeu yu nekk la ñu dugal pour que ku nekk rek foo gis sa bopp nga mën cee jouer ñi nga xam ne dañoo gëm ay calcul ak ay ceytu ñooñu xëy na pari foot bi ak ak PMI moo di arrangé bu ko defee ñuy def seen i calcul pour mën a jouer ñi nga xam ne nag ñoom seen chance la ñu gëm maanaam hasard ñooñu ay jeu yu mel nii loto dana leen intéressé ñooñu nag aussi faw ñuy provoquer seen chance pour mën di gañe loto boobu nag ñun dañ cee am bégte di leen ci félicité yéen ñi nga xam ne yéen parieurs yi yéen a ko gëm di leen ba nga xam ne boo seetee ci at bi gañe nañ ci euh, am nañ ci 64 gagnants yoo xam ne gros la waaw muy muy muy muy xaalis bu toll ci 692 millions lañ ci séddale ci ay gagnants. nga xam ne donc LONASE am na ci contenté ci jàppale bi ngeen jàppale produit bi parce que yéen a ciy gis seen bopp boo leen ci gisu leen seen bopp kon xaalis bu toll nii kenn du ko mën a kenn du ko doon distribuer waaw di leen euh, wax ne fii at bii di ñëw muy mille 2022 am nañ ci ay projet yu am solo yoo xam ne waaw ci fan yi directeur général jot na jot na cee wax muy lan muy seet nu ñuy defaraatee suñuy agence ba nga xam ne euh, direction générale na mu rafetee agence yi aussi mel noonu bu ko defee maanaam suñu budget yëpp ak xaalis bu ci gën a takku ci agence yi lañ ko yóbbu bu ko defee ñu defal leen ba ñu rafet nga xam ne yan ñuy suñu parieur boo leen ci nekkee da ngeen di nekk à l'aise beneen bi aussi kiosque yi aussi faw ñu defaraat ko parce que ñooñu ngeen di jokkalanteel tout le temps kiosque yi aussi dinañ ko def beesalaat ko mais aussi yokkaat ay kiosque yeneen façon kiosque yu bees muy 1500 kiosque projet bi les bu directeur général doon wax ci fan yi passé loolu yëpp day jox beneen image Lonase day tax aussi euh, ñun ñu jox leen seen i gëdd parce que yéen foofu mooy seen jëmukaay waaw kon nag loolu yëpp ay projet la yoo xam ne mënuma koo lim ba mu jeex PMU online muy PMU boo xam ne boo boo amul jot pour mën a dem ci kiosque ba jouer bu fekkente ne sa liggéey tënk na la ba nga xam ne itam munatoo dem ci point de vente ba pour jouer mën ngaa toog sa bureau yor sa téléphone nga jouer si am na campagne sax bu ñuy lancer pour expliquer nit ñi noonu nu ñu koy defee pour aussi loolu yëpp pour yombalal lu ñuy naan parcours client maanaam gàttal distance bi ngay def pour mën a jouer loolu yëpp pour seen bégte la waaw ko defee nag ñu jeexale fii ñu profitoo ci occasion bi pour ñi ñëpp ñu fi teew commencé ci coordonnateur euh, Cheikh Senghor dem ci suñu partenaire muy Eric nga xam ne mooy premier Sénégal dem ci madame Daw muy euh, directeur directrice du marketing et de la communication ak Cheikh Fall mi fi nekk muy euh, directeur commercial nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir euh, mbir boobu hmm. ah du ma fàtte aussi suñu collaborateur parce que ñoom euh, fépp fu lonage woote ñoo ngi ca du ma leen fàtte yéen aussi muy journaliste yi nga xam ne Lonase aussi da ngeen di mobiliser pour affaire mbiru lonage ñu ngi leen di remercier di leen souhaiter at bi di ñëw suñu borom defal ne ci xéewal yu bari suñu dàqal ñu ay Omicron ak i Delta ah ba nga xam ne daal. ñun daal daañu delluwaat ci situation bu ñu daan nekk bu ñu fi nekkoon en 2019 ñu ngi leen di gërëm di leen sant mm-hmm. wasalaam